Nul ne peut douter que le président Macky Sall a un bilan positif, car les choses sont en train de se parler d'elles-mêmes. À la place d'un remerciement, à la place des prières, à la place des applaudissements, il y a des personnes mal intentionnées qui échangent la vérité par le mensonge. et nous sommes de dire la vérité et d'apporter la bonne parole à la population wax dina am fomante ay kàcc dana am waaye su dégg jibee ñu xam ne dégg jibu na dégg googu nag moo waral ñun ñu ànd ak le président Macky Sall parce que c'est lui qui incarne le camp de la vérité mais ñi nga xam ne imposture kàcc ak sos moom lañu xam dañ koy bàyyi ak moom bàyyi kook ñoom ànd ak dëgg gi nga xamante ne moom la président Macky Sall teg doxal ko wóyal ko muy si kilifa diine yi wóyal ko muy law ba si askanu Sénégal ku noonu dañ ko war a sàmm ku noonu dañ ko war a aar ku noonu dañ ko war a wéttali ku noonu dañ ko war a défendre ku noonu dañ ko war a dëggal moo waral suñu tournée yu ñuy def pour wax ak askanu Sénégal lu weesu bennoo réunir nañu sous la direction de son excellence le président Macky Sall ñu jiital le premier ministre Amadou Ba dont nul ne doute de ses compétences professionnelles et autres la preuve il est l'incarnation du plan Sénégal émergent muy une vision éclairée de son excellence monsieur le président de la République Macky Sall ñëpp xam nañ ne xarañteem ñëpp xam nañ jaar-jaaram ñëpp xam nañ xarañteem ñëpp xam nañ loyautéem ak l'engagement sans faille qu'il a toujours eu derrière son excellence monsieur le président de la République Macky fal Amadou Ba mooy continuité wu plan Sénégal émergent fal Amadou Ba mooy naatal Sénégal fal Amadou Ba mooy dimbale askan bi est-ce que tey war nañoo nangu donc nekk des acteurs et complices de la situation bi nga xamante ne moom la askanu Sénégal war a continuer du dundee te lépp ñu nar koo teg si ay sos ak ay wax yu tegul fenn koo xamante ne ëllëg boo leen laajee nu ñuy defare ab pon ëllëg nu ñuy taalee ab lamp ëllëg yan mécanisme nañuy tourner sur le plan des financements pour aider la population sénégalaise mënuñu apporter une réponse adéquate par rapport à ça parce qu'ils n'ont pas la notion de l'État dañu tàmm di def un week un quartier mooy samedi bu ne dimanche bu ne danañu déplacé wu dugg ci koñ yi mobiliser jigéen yi fa nekk ak góor ñi ak ndaw ñi discuter ak ñoom échanger ak ñoom sur la réalité du Sénégal tey suñu borom ak màggaayam indi ñu fii ci quartier dixième ma am mbégte am kontaan xam ne population dixième teeru nañ ma ci coobare ak jëmm son excellence monsieur président de la république Macky ndax moo fi def lu kenn deful liggéey fii lu kenn liggéeyul tabax fii lu kenn tabaxul soqali fonctionnaires yi soqali les militaire et paramilitaires ku mel noonu suñu wareef mooy dëggal cëram dëggal liggéeyam taxaw fasal ko bien vrai que les choses sont en train de se parler d'elles-mêmes la ma nangul woon démb nag du tey laa koy nangu la ma mënoon démb la ko gën a garaaw ngi donc ñi ñuy yebal un soi-disant ivrogne qui se réclame étant un conseil spécial du président la République ñu yebal ko mu may attaqué billaahi laal na laalaaki waaye moom comme du sama cible ña ko yebal ña ko yebal la soxla sama xëy nag dafa xajul si ñoom kenn won woon loyauté kenn laay woon ngor parce que moomu ko ji kenn laay jàppale muy le président Macky Sall mais du ñoom du ñoom parce que yemuñu ma fii fa ma jaar ba yegg si fii la ma def ba yegg si fii ku fa jaar di nga ngiroo kon yemu ñoom te ndróow maak ñoom te duma musa ndróog ñoom man yoruma ay pot de vin di dimbale ay askan yalwaaniwuma xaalis pour jàppale askan la ma yor dama ko liggéey Thiès ngeen dëkk Thiès laa dëkk la ma fi investir askanu Thiès gis nañ ko dawuma làquma nëbuma bu fekkante ne la ma leen di dimbale ñoo tax ñu may attaqué danañu continuer di ko def parce que ngor rek laa deseel sama diggante ak président Macky Sall moo waral ma ànd ak moom mais ku ma xool xam ne lañ ma jox yellowul ak sama dayoo yellowul ak sama meluwaay yellowul ak sama taxawaay parce que dama ko liggéey ba kenn liggéeyulee dama ko xeex ba ñu dawee di làqatu ba dëkk bi yëngoo ñi doon gën di daxaw di défendre la république ba yëkk bi yëngoo ñi taxaw doon défendre toute une ba dëkk bi yëngoo ku taxaw doon défendre le président Macky Sall ñëpp xam nañ ne ñu leen gis tey nag neex na ñu may xeex neex na jàmm am na si réew mi ñu may xeex waaye ku may yëpp danga ma fekk may nelaw waaye nag bippe nañu ko am crédit te dinaa ko defante ak ñoom je n'ai jamais été demandeur je dis bien et je ne le serai jamais de ma vie man conviction laay ànd nit ngor laay ànd nit parce que président Macky Sall moo ma ko jaral au-delà de la considération politique, c'est mon grand frère. Et je sais personnellement l'amour, l'affection qu'il a toujours eu vis-à-vis de ma personne. moo waral du ma ko jënde kenn waaye su dul woon moom leneen la ñuy wax te su ma jàkkaarloo woon nag ñoom lañ yor danañ ko ñàkk te xam nañ fu may waxee waaye nag koo xamul noo koy def nam la defa tax muy le président Macky Sall kon nag maa wax ñañuy monté te bokk ci njabootam di ma xas ndax dama jege population bi di leen dimbale nañu arrêté billahi suma fippoo du baax ci ñoom du baax ci Benno du baax ci régime bi loolu dama bëgg ñu mettre loolu ñoo arrêté ko parce que l'heure est à l'unité pour la consolidation de toutes les forces vives de la coalition Benno Bokk Yaakaar dafa am lu ma set waaye nag wax ju bon dafa am fu muy yem te nañu arrêté xamante nañu mais du ab ivrogne soi-disant conseil spécial du président de la République bi ñu yebal nga xam ne kaka yebal moo yeggali këram jër jabaram mooy taxaw di ma saaga kooku yebal la bu amee fit na jàkkaarloog man man fii laa dëkk de aw ma fenn sens interdit ku ma jox cër ma jox la ko ba mu mat waaye ku ma fekk si yoonu xeex na nga jël say matuwaay préparé wu te xam na dinaa jàkkaarloo ak yow. ndimbal na sa fekk loxol borom bu ñu soxlaa ngeen xañ ñu su ngeen soxlaa laaj ñu ñu faj seeni ajo kon nag soppi leen doxalin ngeen jàppale ki jara jàppale ngeen dimbale ku dara dimbale ngeen ànd ak ki nga xamante ne su yoree ngeen yor man de duma tàyyi te bés dana jot leer na suñu boroom ñu bañoon danañ nangu ñu bëggul woon danañu bëgg ñu bëgg ñëwit danañu ñëw incha allah rabi lu wax moo waral moo waral ngir seen ndam ngir seen ndam su neexee yàlla suñu borom dinaa si participer ak cent pour cent te ngeen jàpp ne am ngeen fi un million dinaa leen ko jox si kàttan yàlla suñu borom financement wu jigéen ñi la ma waxoon laay waxaat tey di ko dëggal man du ma waxantu jinne mbajuma seytaane pesuma la may joxe sama doole bopp la la may joxe sama poosu bopp la te ñeme naa ko bokk ak askanu Thiès moo waral na na ma ne jigéen ñi nañu regroupé wu ba mat cent personnes bu ñu matee cent personnes ñu financé leen de cinq à la en dix millions semaine prochaine ñu njëkk a déposé seeni récépissé bi pare te ñu ubbi banque dont le secrétaire général de mon parti ici présent le doyen Guèye mooy gérer kuréelu jigéen ñi ubbi leen compte volet bi semaine prochaine la ñu commencé dégager un budget de vingt millions pour déposer ko pour jokkoo pour jokkoo jigéen ñi muy première première kuréelu dam yi nga xamante ne moom la ñu taxawal ñu fas yéene leen financer semaine prochaine muy 20 millions si kàttan yàlla suñu borom. naam voté wu fii courant rouge école HLM laay voté la ma leen di ñaan mooy centre bi gagné leen ko loolu daal laa leen di te xam naa ne su ngeen xaree seen tànk tubéy ngir def ko victoire dinañ ko am fii ak 100 pour cent loolu mooy wax ji. takku leen ngeen taxaw li tax ma ne takku leen ngeen taxaw ñu ngi jëm si ay élections. wax ji ñaaw ji dina bëri manipulation manipulation yi dina bëri wax ju bon yi dinañu bëri mais jàpp leen ne benn camp moo am qui incarne le changement et la continuité mooy la personne du premier ministre Amadou Ba may ñaan ni ngeen mobiliser wu nii te quartier yi fu ñu dem ñu mobiliser wu tous les week-ends na ngeen taxawee noonu mobiliser wu noonu encore une fois pour falaat suñu candidat au première tour na ngeen falawoon président Macky Sall 2012 tollanti ko 2019 le au soir du 25 février ngeen delloo buum sa mboy mboy ga jël Amadou Wa fal ko au premier tour mu mën a faj seeni jafe-jafe 2027 ñëw na ñëwagul mais c'est maintenant erreur yi ngeen defoon rectifier leen ko incha allah rabi ngeen dénk ma mairie Thiès si kattanu yàlla seen jafe-jafe nañ ko faj